maa ngi la ko ci sante bu baax a baax internet aussi ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci jox bi ñu jox une perle aussi rare. Ah. Ah, euh, nit ku baax ku mel ni mami toog naa nga gërëm ko. keneen ak keneen toog na te nit dañ naan bu baaxee dañ naan laaj mbokk ya wax dëgg yàlla ci sa mbaax yàlla na yàlla bàyyi ba ci kanam nga yàgg suñu kanam lool lool on t'adore maman Aïssatou ah man nag duma la duma la bokk ak kenn hmm. man nag bu ma duggee ba pare damaa siis Mhm. man kese. ak yow kese du ci xuloo kenn. waaye dinaa ci ñamal tuuti rek mami ndax nga mën di ma ko maîtriser. Eh, kaay ma wax la keneen mënu ko ci. oustaz <laughs> pour wax la euh, sama yaay ni mu bëggee uh-huh. na bu uh-huh. <laughs> moom duy seetaan télé. moom yoonam nekkul ci ci ci lan laa nekk dëgg yàlla lijjantiw ko sax. waaye démb yàlla dafa maa nattu nabu. Uh-huh. am ku ma doon wan ci kër ga extrait wu bi may bi ñuy wax ci affaire u seddaay bi. sama yaay dégluñu ma ba pare mu ne ma man de lenn xam naa ko ci na bu moom li mu sol woyof na de amee <laughs> ah, lu gën a diis waaye balaa ngelaw ko jàpp te poussière bi dafa bari ci réew mi na bu mu mel ni dañ maa dóor mbañ ma ne ko waaye yow. yow ñaanaloo ma man ngay ñaanal bu ko mu ne ma ah yow meer nga di man soxlawul ma lay ñaanal <laughs> man sama doom ji laay ñaanal yàlla dimbale ko musal ko ci poussière bi ndax yow moom ambila buy dem nga rek nee na ambila locataire nga ci kër. dëgg la locataire nga ci ne ah, wane ne daal na bu mooy sa doom ci moom nga fee. maa ngi xam nañ de wallaay xam nañ xam nga boo yàggee ci ay loxo nu la waaye téye nga xam ko keroog bi ñu njëkkee gisee bëtu yooyu mu ma doon xool bëtu yaay la ak doom et c'est ah, très fort ci ñun ndawul ci ñun euh, wax dëgg yàlla mënoon nañuy liggéey ak mami rek nga jàppee ñu collègue am waaye jàppee ñu doom c'est quelque chose de très fort ci ñun te ñu ngi la koy delloo bu baax a baax a baax on t'adore maman waaw mami naam sanga ba ca Medina dafa wax wax du rëy mhm. Mhm. nee na al muminu lil muminati kal miraa mooy li nga wax léegi. da ngaa dugg mu ne waaw waaw nangam ki naan naan defaruwaatal. jëlal yi doole ko ci ku la ñeewantal la. dëgg la parce que bu doon kenn la tàq ci yow du ko xool. Mhm. bi maanaam la ko jox ne la kolol. yooyu lay def sax jëlal yi jëlal yi sol ko xam nga ko war mhm. cofeel la. Mhm. te sama papa wax naan xëy gis sa wujju rek day naataal xol. waaye kenn du tataan mi ñuy yàlla subhanahu wa taala dafa am solo trop. <laughs> <laughs> dina ko. <laughs> oustaz. Eh. oustaz yaa ngi défendre ku doy waar. yaa sama yaay ak seen ñoom seen famille danoo doy waar rek. merci beaucoup rek yàlla xam doy na. mami déedéet sama yaay di oustaz jàngal liste bu toll nii la ma jox. te nee ma loolu balaa bëccëg gee jot. balaa ma dugg ci kër gi lépp ngay def liste bi naa ko def naa ko naa ko matal. lépp ngay ko kon nag yàlla baax na. Ah. <laughs> lépp ngay def lépp lay am benn néeg nga fi am ma génnee la. koy génne nee na man daf may génnee. kër gi dem dugal laa génnee à tout moment. bu ma génnee ma dem seet nekk ci internet yi. seen kër. loolu tamit wóorul yàlla wóorul de tàndeeram <laughs> dafa doy waar tamit. en tout merci pour vos vœux et ngeen jëf naa. mas ngeen seetlu ku way juróom gërëm. Mhm. dem ba ci situation yu très très très très difficile yi. Mhm. Mhm. te yàlla génnewu ko ñoom. déedéet déedéet. yàlla wax dana ko def. nee na ku bëgg dem àjjana ak àdduna ak alaxira fonkal ma yaay ak bàyyi. yonent yàlla Muhammad wax ca Madina. sallallahu alayhi wa sallam ne birrul waalidayni afdal min salaati. wa sadaqa wa sawmu wal hajju wa jihaadu fi sabilillahi nee na toppatoo sa wajur moo gën. moo ëpp darajay julli ak koor ak màkka ak umra ak jël jaas xeex yoonu yàlla mhm. ñu ne yaa Muhammad waaw julli lu ko gën mun a sa ndey sa bàyyi mhm. koor mun ndey bàyyi mhm. aj mag mun ndey bàyyi saraxe ndey bàyyi umra ndey bàyyi xeex ci yoonu yàlla mun a ndey bàyyi mun a ah kon ndey ndey bàyyi réy na mun a waaw mu ne waaw yàlla bu dogaloon ndey bàyyi amul ndey amul bàyyi amul ndax doom dana judd bay yaamu yàlla kon nekk te rawante baa ci ndey bàyyi moo tax ma ne xëy gis sa wuy jur rek surtout bu jigéen. xam nga jigéen moom sidit la. jigéen. moo gën a sensible bàyyi man nga am barke fii am ay nomination waaye yaay moo yóbbu ajeen ndëkk rek doom wallaahi te te yaa Seydi lu gën góorgu seen ko xeeb. te yaa Seydi kii loo ci xamul. wallaahi lu ci bëri ma bañ a fekkee. damay xam. Eh, force bi muy am tout le temps. wala fit des fois bi muy doxee man sax daf may jaaxal. Mhm. dañuy toog waxtaan mami doo ko doo wax ak moom deux secondes te neewu la sama yaay lii wala mu ne la lii de laa bëgg a def. sama ah. yaay laa ko yóbbul. wala laa waxtaanam yépp day tourner autour de sa mère et de sa sœur. sa kon dafa boole yàlla dogal na ni. Ah. ñoom ñaar rek la am waaye xeebu leen. xeebu leen ñoom rek la bëgg. mami dafa am ay moment yoo xam ne moment yu doy waar ci tele bi moment yoo xam ni wax dëgg yàlla non seulement kër gi dafay doy waar mais da ngay am ay proposition yu ne. mais ci moment yooyu laa xamee fitam ak jàmbaaram ci moment yooyu laa ko gën a fonkee parce que dafa ma man man damay soog a tàmbali rek. Mm-hmm. xaw ma lu bëri proposition yenn yi fu ne lay jóge mm-hmm. da euh, am na nu muy nu muy nu muy demee danga naan ah pourquoi pas ma dem xooli leneen. Mm-hmm. mais ci ay moment yoo xam ne yu critique ci télé bi mu xool ma ba ci yàgg mu ne ma on va rester. te défi bi dañ koy relever man ak yow. te boobu. xam naa ni njàmbaarteem ak fitam mhm. moo ko may lool noonu parce que xam naa ni sax ba muy ñibbi am na xel ñaar ci li muy wax waaye daf ko doon wax parce que xam na ni am na wéeruwaay wu dëgër te wéeruwaayam mooy yaayam wéeruwaayam mooy xolam mami ci baaxam ci la ci la ñuy àndeek moom parce que tellement daf mooy couver des fois elle me dit fais dama koy def san réfléchir parce que damay xool ci ginnaaw lim may nangu damay xool ci ginnaaw lim may muñal te loolu mbaaxam la mami si je suis à l'aise ci plateau bi wala ci liggéey bi ma def c'est grâce à elle tey su may mën di wax avec peut-être tuuti assurance rek ci sama liggéey c'est grâce à elle donc yaay yem buy anniversaire day mel ni moom mooy anniversaire parce que lii ñu am ci moom c'est grâce à elle alors ñu ngi koy souhaiter maman Aïssatou Sène une euh, un très bon anniversaire suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam a kanama a kanam kanam at yi bëree bëri yaay ba Suzanne bàyyi laqal gim la laqal. Ah, ah, ah. Suzanne teggil sa tànk. Euh, mami ah c'est Seynabou. waaw yaa Seydi ay ca très rapidement comme ça ñu mën a dugg ci waxtaan bi sinon mami day jooy. waaw wax moo indi wax. Mhm. maa ngi gërëm suma papa ak suma yaay. suma mhm. papa sama yaay fan xam nga ma gërëm. Mhm. xam naa nettali lu tax am solo. sama papa dafa mos toog mu ne ma boo doon nelaw sax yàlla barke seen nelaw. mu ne ma bul xeeb bul bul bul tiitaru wala nga jaaxle mukk ci ko yore milliard. Mhm. nga bëgg ci milliard am. mu ne yàlla namul mu jox la ko parce que yow ku nar ku dott texe. du la dimbali. Mhm. Mhm. wallaahi moom ma ko wax ma ngaa jënd. bi may liggéey dama naan lu sa am xaw ma sama enveloppe lu mel lu ñëw mën sama papa am. xam nga lu ma ci tegal. bu dàkk loo bëgg yàlla defal la ko. macha allah te xam naa ne moom góor yàlla la. sama papa toog na benn jour fital fital mu yoroon fital bi décroché dam dagg dagg benn ta benn loxo bi. Mhm. dugul benn baaraam bi ah mu yóbbu ko principal te fa may liggéey sama xaalis matewu ko solde mhm. mate ko ba mu ñëw lettre gante mu ne i tubaab bi na ma yow yow kii neel waa neel xale bi kii li indi bi fii fi mhm. dafa cher ma ne ko naa mirasam bopp. macha tubaab bi xool ci sentiment dama kon nañ fa bàyyi paa bi. soo ko bi mu wéree neel benn. leneen médecin bi mu ne ko ana sama doom mu ne ko xëy na dem na dem na liggéey. Mm-hmm. mu ne ko nee ko bu doon nelaw yàlla barke nelaw. Mm-hmm. ku ko ne jàkk mbaa nga dimbali ko loo bëgg Seydina Muhammad dana ko defal. kon kooku bu taxaw di wax ci yàlla ak xaw ma benn man xaw ma bureau kenn ah bëriwul taxawlu ma benn xew jàmbur. Mm-hmm. waaye ma kenn. waaye sama xol ku ko yàlla sori sa xam na ko waral. sama njaay ak sama papa ma ñaanal. te nag dama ñaan ba gën na ñaanal la moo tax nag eh, moo tax ko yàlla gërëm. ku am ngërëmul way jur mooy texe nga àdduna boo góorgóorlu jaamu yàlla ajjana nga dara nga jëm. kon lii lu ko war a mooy yéen ndaw ñi góorgóorlu seen papa ak seen ñu ne am ku ma ne waa man man dama jaaxal man dama màgg sama baay gisuma ko gisuma ko sama papa dama daan xulóog moom ba faatu na booba xale laa man ko demal nga tarbiyu sa magi baay waaw sa rakki baay sa la am nga am na baay mag mu ne waaw man ko demal nga topp ko parce que deret ji la benn bi la waaye comme tuub tuub nga ko de ko dee ko toggal li mu daan bëgg sa papa. bu def mbax la bëgg de ko defal mbax defal ko sarax. bu dee ataay la bëgg di jël ataay jox ay ay xaritam. lu mu bëgg rek jëlal ko loolu ba ci yére jox ko magam bàjjanam tàntaam uux ay xaritam. kon dafa mel ni kon la nga deful lépp yàlla jégal na la ko. kon ni suuru ba taw daal. ànd na dama ala maa fàtta. sarte tuub mooy rëccu la nga defoon. di ñaan yàlla daal ñi fi yàlla def rek seen wujur des fi. yàlla yàgg ak ñoom. ndax naat la ci xol waaye nag loo am lu mu bëri mu néew neen papa ñaanal ma. waaye waaye góorgóorlu leen waaye ñoom doo ko rëccu ñoom doo ko rëccu ah. yaa doo xam njëriñu njëriñu njëriñu wayjur tànk ñàkkuloo ko. wallaay dëgg tey da ngay toll moment yoo xam ni boo mënoon joxe li nga am yëpp na serait que pour deux minutes. Mm-hmm. nga mën a sa papa wala nga jàkkaarloog sa yaay da nga koy def. wallaay dëgg donc boo ko mënatul. Mm-hmm. boo gisee ku gis waajuram da nga koy ñëwee. et ñun ñi ñàkk teel a ñàkk suñuy wayjur dañ koy xam dañ koy xam et c'est des choses yoo xamante ne nit mënu ko xam daal tant que mm. ñàkk ko liñ naan valeur li ngay yor doo ko xam dëgg dëgg dëgg tànk ñàkkoo ko. Mm-hmm. waaye gaaw yow yow yow weetoo yow weetoo bu ne génn leen fi ngeen dugg nii. alors léegi yow yow ñàkkoo dara taxawal yow ñàkkoo <laughs> yow xanaa xamoo kenn ëpp la chance damay damay wax souvent ne oustaz Diaga nabu. Mm. ku bëgg jàmm na ko teg loxo. <laughs> waaw na ko teg loxo rek parce que mhm. dafa am loo xamante ni yàlla moo koy def ci nit boo ko nangoo rek doo sonn man sama yaay dafay faral di ma wax souvent naan ma bëri léew ma jamono ji jamono ji naqari na trop mhm. ci li ngeen di liggéey ci ngeen di jaamu yàlla suñu borom mhm. ndax man ngeen defal maag ñàkk maa bañ a defal daw naa sama àdduna liggéey naa li may liggéey am naa samay décoration alhamdulilah maa ngi toog liggéey naa ba nekk mag ba jàkkaarloog sama njaboot Mm-hmm. sant yàlla mm-hmm. leneen li ci des mooy seen bopp ngeen koy liggéeyal waaye daf may faral di ma wax naan del taxawu ñaar mm-hmm. euh, koo xamante ne xolam dafa rafet te way juram sori na ko ak koo xamante ne itam maanaam euh, nit koo xamante ne borom xol bu leer la góor góorgóorlu ci moom tey mooy tëndiku di ko tooñ voilà donc moom li muy wax nii na xam ne euh, damay wéyee ndigal ndax loolu lañ ma yare Mhm. jamono bi lu muy naqari ak li métier bi ni ma ci engagé engagé itam sama baatu yaay benn rek la suba bu xëyee. Mhm. tegul ci dëgg. te booy wax dëgg it. bul wax mhm. dëgg ndax dafa neex doomu aadama. def ko en ton intime conscience nga xam ne boo tëddee wax dëgg yàlla bu la yàlla suñu borom jëloon itam yàlla kàpp kàppit nga mën a jaar ci la nga jaar mu leer na la lu dëggu ci yow la. dëgg voilà donc vraiment euh, ñun dañuy Alibes tey. waaw maire bu lakkale boobu ba ministre bi. <laughs> dañuy anniversaire nag. yow yow yow manqué woo dara na lu la waay waxal rek da nga mën a waxal nit lu baax waaye lu la waay waxal ci yow la <laughs> te na nga xam ne yow xanaa xamoo yàpp chance yëpp ëpp naa ndax yow da ngaa am yaay ami pap am nijaay Oustaz Diaga bu toog fii. Ah, am ay sœur yow kenn gënu laa protéger ci réew am papa Younus bi nekk Canada am papa Younus am ay nijaay ay frère ay sœur. macha allah yal na yàlla fa. bu ngeen bu ngeen absenté day jékki-jékki wala. voilà mu xooj téléphone damay tiit. waaw ah, mu ngi noonu di la napp naan la nabu baal tàkk ak la naan baal tàkk baal tëgg ji. nabu baal tëgg gi nabu baal tàccu gi ah loolu yëpp nag sant yàlla la oustaz Diaga donc yàlla na yàlla defal leen jàmm yéen ñi daal suñu way juri yàlla na yàlla guddal seen fan yi ñi ci des ñeneen ñi fi nekkul itam nañu xam ne ñàkk fee nekk it c'est pas pour autant que dañoo teggi seen ci ñun voilà ñu ngi ñuy xool saa su nekk ci lépp lu ñuy yëngu donc mhm. yàlla na yàlla def jàmm mani allahumma bismillah laa wax ci ruube gi bu leen fi indi benn problème <laughs> meer bee màgget ba na kon tey dañuy dañuy émission ba midi internet yi partagé leen ngeen like ngeen xam ne tey ñun ak yéen ba midi. déedéet wàññil midi bi. oustaz bu xëy si suba mami. Hmm? waaw oustaz bu xëy si bu oustaz dafa bëgg def émission bi nii. waaw kon nañ fajar bu fajaru tëjoo moom mu continuer def émission bi nii loolu tamit du xel. <laughs> midi plus ay Pape Cheikh la ñuy sant. <laughs> oustaz Aïcha dama. <laughs> yaa Seydi Aïcha. waaw mbokk yi yàlla yàlla du yàlla yàlla yàlla yokk jàmm. amiin yàlla yàlla sutura réew mi. amiin ah dinaa ne faa naan réew du quartier. déedéet du koñ de. réew du daayira. Mhm. réew du tariqa. Mhm. réew beneen domaine la. Mhm. yàlla comme que sant sant sa yow la. waaye na nga xam ne dana yàlla jox lu mu doon. dëgg la moo tax yàlla moo suuf nit ki bu la yàlla jox loo xam ne bi da ko xëy yu bëri. da ngay toog conscience. ne kon nag bàlli naa li bëgg nga am ko. ku bëgg yaatal ko. adduna ngoog. da nga texe adduna texe la dëgg la. Eh, oustaz wala euh, nabu dañu war a waxtaan wala waxtaan ci kaw mooy lan mooy wax mhm. waxfu fondation la boo xam ne bi yahut bu tuddoon Murayqiq Murayqiq la ju benn juif bu dëkkoon ca Madina daal di ba jàkkoorloo ak kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa te moom du jullit yahut yahut la waaye dafay gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis mu nekk ñi ñaan dugg ci kër gi bëri loolu di dugg ko génn mu ne waa kii kii mhm. ñuy seet si nii gisuma fu mu bayee